Entertainment. Christian like that home no my kumase ha Nama wano rap nangul rin makumase ha Mangin rap kaho matambali ha Krak boom am ha nyamali ha Wala bro kai daga nyambale Kai tek nigga boy damay laka angale ha 태양이 너가 헌놈의 대게 너만만한 랍보이 너플라이 개게 핫도파이 shit 그는 반대 알카폰 homie 보내던 갈도 내가 실마 알라폰 말라 아블라는 I rhyme stay 네가 막걸리 알로 summer rhyme 삼니 우아 the fly, huh? Guy boy, you rap boy, guy yaa ngi filmé guy on the block guy, est-ce que yaa ngi filmé maa fi boy nangu rek seetu man de su may rap damay gis benn seetu ay guy fis maa ngi benn machine wala wala block yaa ngi sol débat dëgg huh? yo boy lu may def si débat dëgg huh? maa ngi xaqa boy xaqa fire shit guy indi ëpp guy huh? dama kay tàngal boy ba mu tàng jël wala wala block mu jëntalu àdduna la ñu nekk fii ñëpp gërëm gëlëm fàtte seen bopp depuis seen nopp jëndee ko dërëm golo bay baabuñ dundee xaw a am fàtte démbam topp àdduna fàtte dee seytaane iri ci këram ku nekk di xëccoo nguur fàtte ni yàllaay buur jàpp jirim tëj ci fuur coob ci ribaay yi ba suur lu xew ñu roy ci dàq ñàkk repère ñëpp a jàq bëppal du ñu demee nànk hey bu jeeti yàq faram yooyu diriger adduna bi sacrifice yi nu ñu bëree ay day nu naufragés yi mën naa ci bind téere conflit ak terrorisme coup d'état banditisme yàlla bëgg a atte wane dooleem dogal fa ay séisme possession d'armes nucléaires yi bul xam fu muy teeri troisième guerre mondiale moo ngi xeeñ adduna bi nar naa tukki Palestine Iran Irak bee ngi jolli Afghanistan taxaw fii USA lay boomi <laughs> peace man. Oui tu wala. duko miss gërëm sama set pas ma biir bi ma wàkka dara kangal fegi ci bind mu rafet mu rafet ma mën ne fa taxale fetti ni bi ko lefala bu yàgg ni ndoket ni ndoket seen barrière dëgërul ni saket na saket yor vitesse su saret saret dëkk dur rek di taxale neexul leen jàppale caw rek ngeen mën ni saket même su may nelaw sax mënoo ma yee moytuma boy mooy li dunda sa pe gon musal na ma ci làmmiñ ñi fekk ni nga nangul ma ki isi noo tuta te mënoo takkale bëgg matale matale seerab lay soppi bi ñëw pakate MC lay soppi ndoket ci suuf koket nee la defil man a ket wala tasu boppa njaay capet capet fegeen ni kuy tukki rabbi magget magget life rabbi ma ci air foog sa copine ma solaire Tol bi nan na constaté ko nawet zal Fils lu ñuy def dafa carré tege Rap dafa xaar ku force mais arrête ñii rabu dawal mbam, solon ngeen ñu sene xaar fu neex jël son kale putain message xol don fa goomu jabe jabe jëll gëdd soog bi ñëpp tapé, tapé foog sa niveau foog sa guerre man ak yéen comme nañ ci xeer déeri panopoli ye sa dere mani da nga bëgg a dele samay bëggee ok baal sama son yi ngay coppe coppe sa rabu jay taar nee na dañu ay waay kii duma mbej dem bale fële.